formation bi dafay permettre ñu euh, renforcer capacité wu ñuy liggéey ci biir euh, euh, secteur bi mooy maanaam ñi nekk ci biir ñuy liggéey ci système financier décentralisé pour leur permettre ñu am monter en capacité comme ni ñu ci ci ci mais pour leur permettre au moins yokkute ñu am yokkute pour mën a euh, délivrer ay service de qualité euh, à nga xamante ni ñoo ko soxla ñoo ko soxla au niveau euh, national au niveau des différentes comme ni ma ko waxee woon sànq fonds national de la microfinance ñoo ko créé en et dañ ko créé comme ni ma ko waxee sànq pour mu contribuer améliorer l' financière des populations loolu benn pàcc la beneen pàcc bi mooy. Euh, xool bi ñuy jàppalee euh, système financier décentralisé yi euh, comme ni ma ko waxee woon sànq dafa doon mayon bi nga xamante ni dafa important ci service yu ñuy délivrer population yi pour ñu mën a am ay financement pour mën a liggéey liggéey lu ñuy liggéey parce que comme ni may faral di ko waxee institution de microfinance yi suñu amulee formation bu ci war ñu amulee euh, ay capacité yi yi ko yi war euh, du ñu mun a euh, jox population yi soxla ay financement ay ay crédit yu adéquat donc loolu yëpp dañu doon benn maillon bi nga xamante ni il faut que ñu leen di renforcer ñu leen di tàggat tout temps pour ñu mën a def ay liggéey yu mucc ayib. kon dañ ko commencé depuis 2016 2016 ba 2019 avec une réunion ARETI. mais ren avec l' appui du FODAMIV dañoo commencé à redémarrer cette formation une formation diplômante parce que dañoo xoolal ne institut de microfinance les formations agents yi amuñu woon xarañte boobu te formation bi ñu leen formation boo xam ne da leen joxe mandat day am diplôme. diplôme boobu tamit parce que day tax ñoom ñu renforcer seen compétence mais diplôme boobu ñu ci bëri agents yi ñu formé yu bëri day tax ñu mën ñu a am ay promotion au niveau de les institutions mais ce que je ba ma bëggoon wax bi soo xoolee c' est reconnu dans vingt cinq yoo xam ne vingt cinq pays donc c'est international dafay mën a gën a permettre ñi agent ñu am xarate xarante boobu parce que dañoo bëgg doon secteur microfinance boo xam ne ñu am personnel boo xam ne li ñu mën a capacité à chaque fois ñu mën a répondre aux besoins des populations l'objectif final c'est d'avoir des ñoo xam ne ay agents yoo xam ne chaque fois pour ñeen client bi ñëwee ne dama soxla tel produit tel tel kii ñu mën a adapté wu pour répondre à leurs besoins formation cérémonie du remise diplôme boo soo xoolee moom mooy on a euh, euh, Euh, session deux mille vingt euh, deux mille dix huit ak deux mille dix neuf ñooñu la def seen remise de diplôme cette année cette année nag la ñu continuer pour pour pour c' est dans la même dynamique dañuy continuer formation. mais bon xanaa li am na un peu parce que bien passé dafa amoon module bu ñu beneen formation dañ ko doon agent de crédit mais léegi dañu sans dénomination tuddee tuddee ko chargé de clientèle parce que aussi il faut que ñu mën a adapté ak adapté wu de nouveaux produits ak de nouveaux modules de formation. ñi ñu tàgge tey jii tey jii am nañu quarante cinq yu ñu ñu tàggal fii nii tey mais am na benn formation responsable euh, d' agence bi dinañ am lu mat euh, ñeent fukk ak juróom-ñaar. durée bi formation responsable euh, chargé de clientèle ñooñu seen formation bi fukki fan ak ñett la pour responsable d' agence yi fukki ak ñaar benn jour externe.